bokki jullit yi bokki taalibé yi waa kër xadim rasoul waa kër cheikh mouhamadou moustapha al karim ci kilifte foog sëriñ muntaxa mbàkke xalif général des mourides sëriñ ahmadou muxtaar mbàkke xalif cheikh mouhamadou moustapha al karim mboolem turandooy cheikh mouhamadou moustapha ci njiitul sëriñ moustapha mbàkke ibnu sëriñ touba cheikh saliou mbàkke sëriñ moustapha mbàkke ibnu cheikh masamba mbàkke sëriñ moustapha mbàkke ibnu sëriñ touba cheikh abdoulahat mbàkke sëriñ moustapha mbàkke ibnu sëriñ touba sëriñ abdou xadir mbàkke sëriñ moustapha mbàkke ibnu cheikh sidi maxtaar mbàkke jëwriñu cheikh mouhamadou lamine sëriñ moustapha mbàkke njaate ibnu sëriñ Amadou Mati Sakho Serigne Moustapha Mbacke Est Bouri ibnu Serigne Gaynde Fatma Serigne Moustapha Mbacke Mohamed ibnu Serigne Mbacke Soxna Lo mboolem turandooy Cheikh Mouhamadoul yi satoo ci buntu këri Xaadimu Rasuul ci njiitul Serigne Moustapha Mbacke ibnu Serigne Mbacke Madina président actif Serigne Moustapha Mbacke Bioli turandooy Cheikh Mouhamadoul Moustapha ci réew mi ak bitim réew ñoo leen di fàttali màggalu Touba Daaru Xudoos di bis bi nga xam ne ci la septembre 2020 Touba Daaru Xuddoos ci bayti ñu di leen fàttali siyaare ba ñu baaxoo siyaare jëwriñu Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké dimanche juróom-benn fan ci weeru na fa fekk ñëpp ci bu ànd ak teggin yeesal sunu jaayante fas yéene ànd ak moom ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim turandoo yi ñi ngi soññee ci jàng alxuraanul karim xasiida istixfar ak salaatu ala waaye ñu ko jébbal sëriñ bi ngir gani ngi soññee ci ñeel ñu ngi leen di fàttali ndigal li bàyyi ko ci sëriñ bi te mooy topp tegtali waa kër di raxasu ba set ci saabu wala sel takk ay masque te wattu ñoo xonte bi ngir mën naa lawal balaa bi day yokk wàllante bi te mën naa jur loraange ci jullit yi sëriñ baa ngi ñaan ñu ci wopp wér ñi ci faatu tabbi àjjana te saa boroom aar ci képp kum dalagul lu gën a leer 77 830 02 66 wala 77 623 05 93 Moustapha di ñépp a ko naw jaamu yàlla tax na mu raw topp yoonu njub wa di daw roy ba mësta nelaw mum xel ma sell muy aji xam mel ne gaynde cay ndigalam moo taxoon mu rombi kemam am di nee na ak ku la jur jub te maandu mooy joxe cër ngir ku farlu jëf la ko war am njariñ te deesu ko lor am di nee ku sax ci ndigal jaamu yàlla duñ ko mbugal sayxu bamba nan ko sagal jaar ca yoon ba moo ko si gil yal na yàlla dolli ngërëm am di moustapha kerekam doom ya taalibee ki sëtam mbokk soppe teg ca dëkkam yal na yàlla dolli nu wér gudd fan musal nu ci lor sàmm diin aar sunu ngor mel ne moustapha ak fait la différence.